mbokk yi ñi ngee mat bu baax a baax ak contentement di jàkkul waat ak yéen comme ni leen koy toppalee lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi ni leen ko toppal rawatina nag fi nga xam ne fi lañu ñu jógee buñ ko waxee muy tribinal bu Géejawaay nga xam ne sunu nawle sunu mbokk sunu xarit moom lañ fa téye muy Lac de ci information yi nag am na lu ñu ci jot a dégg waaye nag dañuy toog ak ki nga xam ne mooy sunu invité bu ñu ko waxee muy Modou Anta sans frontière Modou Anta bu Lambaay Modou Anta bu ñiibi Modou Anta boo xam te nii bu ma xam la nag ah Modou maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> Magan Ndiaye maa lay bëggee di sant yàlla bu baax di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur ci nuyu sama waa dëkk waa Njeng waa Kër Abdou waa Thialène waa Pocé Mbusa Sanc Mbusa Ndiir di nuyu waa Saalum bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la nuyu di nuyu guy gi di nuyu gaa yëpp. <laughs> li may wax mooy tiis boo xam te ni moo dal ci axlu làmb gépp dal ci ñëpp muy Lac de Guiers ci tiis bi bi nga ko déggee. waaw waaw waaw déception la ci ñëpp déception la ci ñëpp ko parce que affaire yi moom man yaakaar naa ne bari na ci loo xamante bi nii xamoon naa avant mais. xam nga rek réew mi toll na foo xamante bi nii lépp looy wax si doomu jàmbur wala lépp looy wax si gor rek xool ko ko bu baax buñ ko waxoon ci sa yaay wala sa papa wala sa frère parce que man sànq dama nekk nit boo xamante bi nii makan ñu bëree bëri duñ ma bëgg parce que <laughs> dëggu gi tamit da cee tax parce que yàlla dogal na man lu may wax du ma ci xool sans ni pôle damay xool li nga xamante bi nii mooy dëgg mooy réalité ma teg ko si table bi du ma ci xaar weccet du ma ci xaar jaajëf lu ma ci Mm-hmm. parce que ci veeyu koor gi mm-hmm. dama toog sama kër man ak sama soxna mu jekk saa yi benn gayaan woon na ma alu moo daanta ma ne ko waa mm-hmm. mu ne ma man benn téer laa bu nekk Kéjawaay sa pense ma juum ñun ñoo am ak problème la de dama bëggoon nga jël ma interview pour ñu wax ci affaire yi parce que boobu ba tey dañu seetaan ma ko ah sëñ bi nga jéggal ma de waaye loolu de wax dëgg yàlla mënuma ko parce que maa ngi xalaat. xam nga na gars yi bëri dañ naan jàng ak nangam nangam mais jàng yeewu da koo gën wala xam. Mm-hmm. après ci laa ne ko loolu moom wax dëgg yàlla du mën a nekk. Mm-hmm. moo tax wax day tungoom seede. Mm-hmm. waxaat naa ko sama émission ak làmbaloog. tey yàlla mi dara tawut. ki ma doon woo mosuma koo gis tey dawal na ba ci samay tànk ci buntu terminal bi. ne ma Modou Anta ma ne ko waaw ah, ça va ñu jaamante noonu ma bëgg a dem mu téye sama loxo ne ma man maa la doon woo man maay téyeer bi. ci problème bi laa bokk. te Modou yàlla xam ne noonu laa ci sonne. def naa médiation ba tas ci ñi ma ko bokkal pour ñu bàyyi parce que man mujj naa retiré hmm. kon nga xam ne kooku amul xol ku baax la. amul xol hmm. ci lan xamante ñu sansante ay numéro après ma dem. Hmm. beneen bi ci topp veille combat Papa Boy Djiné bi. ak Jokkel. def naa interview man ak Fatma Dia ci biir ba génn. sama caméraman Ibrahima mën na ma seede. am gars yu dawal moto ba taxaw samay tànk na ma Modou mën a ko mu ne dañoo bëggoon nga jël ñu interview. ñun problème ak Lac de Guiers ma ne leen ah ñu ne ma waaw ma ne laa ah, loolu mënuma ko de. Mhm. teguñu ci baat ñu taalaat seen moto dem. Mhm. xam nga dama leen koy nangul parce que li mhm. tax dama leen koy nangul gaa. am na lu leen metti man xaw ma ba xam ñoom ñoo am ak problème mais liñ ma wax man loolu laa xam. léegi nag ñoom ñu dem parce que man nag magan kaay ma wax la man duma ma xeexu kaayu kenn ak ku man di doon donte ñoon tamit bëgguñu xeex dañoo am lu leen métti ñu bëgg fuñ ko waxee pour wax ji gars yi mën a comprendre quoi mhm. man du ma nekk di ragg booy yi wala may ragg la dëgër parce que mhm. ñoom ñëpp ci dëkk bi la dëkk. Mhm. comprendre mais dama doon xalaat. pour ma daaneel rek bàyyi laa kàddu gi. tey bu fekkee ne loolu am na. ma dem jëli téer bi jëli coppe yooyu yëpp. problème bi bu amee makan man ban position laay taxawee. moo tax àdduna nit lu metti metti ak. tey lu la affaire yi wër wër. Mm-hmm. dalal sa xel te ngay xalaat. te mm-hmm. xam ne ñu ñëpp ay frère lañ quoi. Mm-hmm. tey est que njortoon nga ne Lac de loolu doon liggéey tey doon trafiquer visa di yóbbu ay nit yow njortoon nga ko. waaw ah, waliyaasu billaahi di profité tamit di wax ne gars suba incha allah la départ bi fii. parce que tamit boobu ba tey gars yaa ngi may woo aw temps pour wuyu téléphone. ñi bëgg a dem Kaolack ci làmbu Duudu Saane bi. ak euh, Njaga Doole. jàkkaarloo Lac Rose. ak xam ne mooy suba incha allah fii la ñuy départ bis bi nag 9 h lay départ 9 bu jotee. Moodu Anta bu ñëwul sax da ko fi bàyyi dem yoonam. incha allah rabbi euh, Makan jëlal na leen hôtel. jëlal na leen lépp lu ci war fayal leen biis climatisé aller retour. caméraman la ak reporter. site yi ñu jotee bind xam nañ 7 na leen fi fekk 9 h ñu départ dem quoi. non Makan loolu moom wax dëgg yàlla ma ko xam la dëgg yàlla bëre rek laa ko xamee quoi. bi bi nga yëgee mbir mi bett na la. waaw waaw parce que dina ma bett kay parce que man nag affaire yi. bi mu amee woo naa Alioune Seye numéro ne ko jaas affaire yi nan la mujjee mu ne ma non Modou garaawul affaire yi ñu ngi koy lijjanti ma ne ko ah. est-ce que mu ne ma waa ñu ngi koy lijjanti dinañ ko bàyyi. ma ñëw ne làmbaloog. kaay comme yow yàlla may na la image. nit ñi xam nañ la kaay ñu def benn interview bu ñu defee benn interview. donte amuñu accordu waa Kër la de Guiers mais nañ ko def te yàlla tax parce que kenn ku nekk si li ngay liggéey. ci ngay dimbalee sa morom. Mhm. mais kenn ku nekk li ngay liggéey si ngay loree sa morom. Mhm. ma ne ko kaa ñu def benn interview boo xamante bi nit ñi dina ci jot pour nit ñi mën a ñëw sot sotloo ko parce que mhm. jàngoro. wala feebar wala natt lu mu si mën di doon dañ koy weer. pour mu wér. boo gisee nag Alioune Seye bi mu waxee loolu. gaa moom la dageer frère am la xam nga. tey jaakaar yaakaar na ne affaire yi du demee nii. mais lu mu si mën di doon dama ne la. waa làmb bu ñu sàggan man ak làmb loolu lañ waxante woon. nitu làmb nag moo mën a man dernier moment. Mhm. dem ba ne fi mu ne nii affaire yi këtt ne na jonn ku nekk doo ko jóg. Mhm. waxal naa leen ko ne leen sa waay nan jóg bu nu xaar na gis nga la dëgër. Mhm. yàlla may na ko kersa goo xamante bi ne ak sutura du woo kenn naa koy jàpp ci wala nangam. nit nag yow yaay goree. du ko see gerew gore wala goree di mais nit. tey yow yaay xam fi sa nawle toll. nga ñëw participer. te promoteurs yi nag mënu ma la mënu ma leen conseil parce que ñoom ñëpp ñoo ma gën a jàng. Mhm. maa ngi leen di ñaan 4 avril 2021 la la dëgër mujj a bëre. Mhm, moo ko ma seen. Mhm. boobu ba tey yàlla dogal na promoteur yaa ngi koy démarché jubóowuñu mais ci nii nii nii problème bi am bañ defeere ko rëbës. ko ci kenn jox avance. ci problème bi ku ci jox avance ku nekk. tama la ëppi buum. parce que Sénégal dañu mën a yàq gor. Mm-hmm. bu boobaa dinañ taxaw ne fii la fi nekk 4 avril 2021 muy jooy combat kenn joxu ko. Mm-hmm. mu dem ba am problème ngeen koy santage di ko jox combat. Mm-hmm. conseil la de. man dégg naa sax am na ñu ko doon proposé ay combat gis naa ko dégg naa ko. ah waaw bëriwaat na feeg Siteu. waaw waaw waaw bëriwaat na feeg Siteu 19 novembre bii ñu génn. comprendre ba mu bëreeg Siteu nag ba tey. gars yi ñi ngi démarché mais dara sottiwul mhm. mais loolu daal laay conseil promoteurs yi te képp ko xamante bi ñi ngi yem nag ñi ngi ñaan nag projet bi bu taxawee lundi mhm. bu dee lundi férié la bu taxawee mardi mhm. ñi ngi ñaan ñu bàyyi ko définitivement pas liberté liberté provisoire ñu may ko liberté totale comprendre nga mais bu loolu amut muy ndog ndog di lu ñu yaakaarul ne kenn ku nekk yëkkati sa ñàkk kenn ku ne xam nga kër la dageer nga dem fa participer parce que la dageer li ko daal mën na maa dal de du ma yàlla na yeex parce que lan moo tax yàlla suñu borom ci boppam bu bindee jaam ni ko waxee ci wërsëg noonu la ko waxee ci jafe-jafe wa maa min daabatin fil ardi illaa alallaahi risquhaa wërsëgu jaam bi yàlla te yow mi nga xam ne dund nga wërsëg bi bind nañ ko sa jëbi tey bu fekkee ne yooyu yëpp am na kenn ku nekk na nga jël ci sa ñaq bul ci xeeb dara dem jox ko keneen mooy Fatma Ja Fatma Ja ñi ngi ko ciy jaajëfal bu baax sonnoon na ci de te xam na ci lu bari lim la ci mën a wax kenn mënu ko cee wax mm-hmm. ñuy jaajëfal makan mbeng aussi tamit ci sess bi mu def yëkkati un million cinq cent du lu ma war a wax. mais teraanga dañ koy weer teg kon nag mhm. bii baa ngi noonu gars somme bi mu war a fay. somme bi nag après waaw xam nga somme nag maa ngi maa ngi dégg gars yi commencé woon li ñu commencé woon quinze millions mhm. vingt cinq millions. Mhm. trente millions. Mhm. mais man li ma mujjee jot comme information. loolu laa mujjee jot. cinquante neuf millions laa dégg. cinquante neuf millions loolu laa dégg. moom la war a fay ok waaw. ñu di gis ne Sadio Mané joxe na dix millions te daa mel ni bi Sadio Mané joxe dix millions critiques yi dafa gën a bari bi ko ñooñu déggee. waaw waaw parce que ma li ma la wax rek tey nee naa la problème bu amee. tey gars yi dañuy xaar rek. ñu ne Modou Anta joxe na quinze millions micro yi tiim moom ma wax ko mhm. am ñeneen ñuy ñëw di raaxaloo mhm. naan ci laa bokk mhm. mais li may ñaan nag mooy nit ñi ak kum si man doon nañ gore rek te xalaat ne kenn ku nekk di nga géganoo sa ndejoor bii makan lu coow li bari bëri parce que bis boobu moom mënul ñàkk suñ loxo yeeg yëpp day wax parce que boo weddee man moom sama wax jalu muus la mhm. al yawma naqtimu ala ay mhm. wa tukallimuna aydihim mhm. wa tasadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun alxuraan a ko wax nit nag bu fekkee ne doo xalaat loolu bu la neexee triandel na nit am problème nga ñëw wékku ne ci laa bokk am ñeneen ñu ñeneen ñoo xamante bi ni tey man Modou Anta ma ñëw ñëw ci yow ne la la dëggee daa am problème damaa bëggoon nga jàppale ko nga yëkkati cent mille jox ma ma dem jox Fatma ja cinquante gars yi nan xam ne lii du projet mhm. nan xam ne lii du marché mhm. gore leen kenn ku ci nekk luñ la ci jox lu nekk nga teg ko ci seeni loxo mhm. parce que ni ngeen ko ko defalee tey ëllëg mën nañ koo defal Modou Anta mën nañ koo defal beneen mbër man nañ ko parce que mbër yàgg na fe am problème ñu jàppale ko promoteur yàgg na fi am problème ñu jàppale ko nitu làmb yàgg na fi am problème ñu jàpp ko lii du gàcce du dara du gàcce du dara destin da jëla doo ko fente comprendre nga lii nii bu mu ci ruus jàpp ne ay kersa la wala dañ ko humilier non non non nattu la comprendre mhm. am na ci ñoo xamante bi nii Ndiouga Kebe mhm. ma ca Touba mhm. comprendre nga Jili Mbaye Alaaji Gaston Mbeng <laughs> ah ñooñu buñ mën a ñëw ñëw fayaat bor dundaat dañuy fay bor dund mais est-ce que tamit ci Lac de Guiers lii mënoon na ci bañ a dugg ci ak tur bi mu am ci réew mi non xam nga yooyu moom matuma ci conseil mais dama ne la makkan du ma ne Lac de Guiers kese yow ak man mii tey ñi wax ci télé yii lu war a mat ñeenti personne di ñu seetaan mhm. nañu vigilant ba ci guy gee comme si man di doon mhm. parce que nag yàqkat yi bëri nañ de mhm. am na ñoo xam ne ay drago lañ wala ay pion yu ñu installé lañ dañuy fexe ba ñëw effacé la effacé bi mooy ñëw dañuy ñëw indi la plaignant bu dul jeex te bu ñuy ñëw ay xaalis bu bari la ñuy yor mhm. nit mën naa ñëw woote ne soppe laa sax mhm. te fekk noonu la comprendre non si mbër tey mbër bu ci am vingt cinq mille nga nga yëkkati cent mille may ko nga yëkkati deux cent mille may ko da lay taf ci boppam def la xarit mhm. moo tax nag nit xaalis buy ñëw ci yow ak homme d'affaires buy mën di ñëw ci yow nanga visilant bu baax te sa image yaa ko moom bu la kenn jox dara vidéo la bu la kenn jox dara photo la muy ñu ñëpp si yem nañu yeewu bu baax ndog-ndog nag mënta ñàkk mais képp koo xam ne yaa ngi si télé di wax gars yi di la dégg nanga bàyyi xel te xam ne sa lu coow li bëri bëri am na ñoo xamante bi ni bëgguñu sa jàmm buñ sañoon tey laa la wax parce kaso ngay fanaane wala ca armeel ya mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw Eumeu Sène Sa Thiès Eumeu ñëw na def na li ko war Sa ñëw na def na ko war ay ñoom fils de Balla gars yu bëri ñëw na mais du ñëpp mën a ñëw parce que tafaati nekku fi mi ngi mi ngi mi ngi Côte d'Ivoire Balla Gaye nekku fi mi ngi INSEP si dellu na am na ci ñoo xamante bi nii tey boo ñëw te sa loxo ñëw baax na tey eh, tafaatin mën na bañ a ñëw ba pare loxoom jugu ci mi ngi woote mi ngi nemmeeku mi ngi def yëpp parce que tafaatin mi ngi ci liggéey kon mbër buñ fa gisul nañ ko comprendre bu dee am nga question. Euh, ñu gis moo daan tam macha allah ba ba li nga xamante ni mooy verdict daanu ñu gis beneen façon moo daan moo du anta boo xamante ni bu triste la ñu laaj ko mën a samay tànk bi na dafa dam mënatuma dara ak li nga xamante ni xewoon na fi ay temps ci ginnaaw jarum ci ñëwaat sa la diggante tey lan ban yëg-yëg nga am ba nga xamante ni verdict bi génn waaw xam nga gars yi bëri dañuy wax man sa waay du ma du ma jinne du ma rab du ma dëmm du ma dara nit kese laa mm-hmm. benn nit boo xamante bi nii nekk Modou Anta jaar daara jàng ba wàcc nekk taalibe suñu Aliou Diouf Lambaye ba pare nekk ca kër ga sët mën naa ne sant moom ma tere teree nekk ab sëriñ parce que boo dee xool ci côté sama maam bi nga xam ne moo jur sama papa <laughs> tey mën naa ne sëriñ la Diouf la sant te njuufee ni ñëpp dégg nañ leen bu dee sama côté yaay famille Cheikh Moussa lañ kon yaakaar naa ne man sant moo ma teree nekk sëriñ mais dama ne la naar man awuma xol <laughs> xol aw ma ko man ñu bëri man nag yàlla daa dogal tey ñi ma xamul rek man garaawul naa leen bàyyi ci vee bi rek mm. am na si ñoo xamante bi nii gain da naan booy bi dafa arrogant booy bi satan la booy bi nangam mm-hmm. mais garaawul mm-hmm. ñooñu ay noo comprendre lañ mm-hmm. mais man xam naa ne ku ma jege bëgg ma coow li bëri na booy bi dafa goog dafa def nii nangam lu ñu wax garaawul sa waay man defee rek moo ma dul bëgg tey bu fekkee ne fréquenté nga ma ba xam kan mooy moo Anta wallaay lancim di nga ma bëgg am na ñoo xam ne dañ ma bañoon bu njëkk mais am na ñu may daje ci mbedd ñu may jox loxo naa may baal ma àq mhm. li may yaakaaran amut mhm. naar mhm. loolu passé na loolu erreur la woon ci moom non si erreur la ci moom erreur la ci man parce que bi mu mi ngi France xaw ma fan woote ci télé bi ne neel Anta na ma baal àq nangam nangam man xam nga parce que noonu laa mel man ku ma xam-xam sama yaay xam na ñun amuñu xol buñ meree dañuy jooy buñ kontaanee dañuy jooy. Mhm. comprendre nga. Mhm. loolu nag ci famille la nit bu mhm. amul xol rek amul xol quoi. ana lan tàggoo kàddu gu mucc. waa di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne gars yi nag nañ ko jàppale rek. nattu kese la. fii bëri na ñu fi nattu dal. mooy ñu sant Mbàkke ñu sant Buso ñu sant Si ñu sant Faal ñu sant Ñas bët bu set ngeen dégg seen doom yeeg seen nangam yi ñu ngi ci kaso yi. parce que kaso yi nag du pour mala. du pour dëmm du pour jinne du pour dara pour nit kese la. kaso yi ak kër yi. parce que sorewuñu mhm. parce que kër yi pour nit ñi la kaso yi mhm. pour nit ñi la mhm. da nga fay dem am na ñoo xam ne ñi ngi ci kaso yi ñuy profité di leen ñaanal ñoom Ousmane Lam Toora suma gaa yooyu yëpp maa leen di bëggee di leen ñaanal ñu génn ak jàmm grand alpha bi mu génnee si kaso bi dama ko fekk mbuur mu ne ma yow del bégge waa kaso bi gars yi dañ lay siyaar dañ lay seetaan bu baax ñu ngi leen di jaanal natt bi yëpp yàlla na teggeeku mhm. comprendre am na ñu ngi ci kaso yi makan bi ñu fay dugg jànguñu baa jànguñu siin ban génnee wàcc nañ alxuraan mhm. mokkal nañ xam nga ak yeneen ak yeneen mhm. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne gars yi lu affaire yi métti métti ak lu jàmm ji bari bëri bu ñu ko fàttee nañ ko nekk def ko ci seen xel kenn ku si nekk sa kemtulaay kattan la nga mën nga yëkkati ko promoteur yi ma sa bëreel yëpp supporters yi commencé seetaan si di amateurs yi di reporters yi nañ jóg média si affaire yi def médiation bu rëy a rëy pour gars yi jàppale ko mu génnaat si jàmm jërëjëf. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf mbokk yi sëñ Alla borom Bambey